ci la yëkkatee ay kàddu moom Ousmane Sonko di xam ne ni état bu Sénégal jël na ay engagement yu am solo nag ngir mën a yóbbu Sénégal ci suffisance alimentaire ba tey ci yëglekaay bi di réew mi quotidien moom ma ngay dellu suwaat ci kàddu yi nga xam ne rek moo di giroo daat dina ko yëkkati ginnaaw bi ñu ko dalalee nag ca émission Grand Oral bu réew mi TV moom moo di giroo moomee nag di secrétaire général bu confédération nationale des travailleurs du Sénégal ma ngay àdduwaat di jëmale nag ci jafe-jafe yi nga xam ne rek liggéeykat yi ñu ngi koy jànkonteel ngir nag ñu gën a taxaw question yi nga xam syndicale yi ak lu jëm ci ñaxtu yi nga xam ne rek moom la liggéeykat yi dëkkee faaw ñu daal di amal médiation sociale enquête yëglekaay xëy àddu jëmale tey jii nag ci mode de gouvernance bi nga xam ne rek moom la régime bu yees bi doxalee yéenekaay bi ne boo moytuwulee dina am ay risques yu bëri yu ca tukkee du yóbbu Jomaay ak Sonko nga xamante ni li ëpp ci seen ay doxalin nag bokk na ci li ñuy amal ci terrain bi yéenekaay bi ne ni Mamadou Dia daan doxalee ci tànk yooyee la ñu nekk boo moytuwulee nag daañu am ay jafe ci kaw bu ñu waree fësal ay résultats yoo xam ne rek ci la leen askan wi di xaar Soleil yëglekaay xëy àddu jëmale tey jii nag ci relation bi war a dox ci diggante Sénégal ak Guinée ginnaaw tukki ne meeku boo xam ne rek président ba Bassirou Diomaye Faye mu ngi ko doon amalee ca Conakry doon seeti naataangoom bi di général Mamadou Doumbouya ñaari dëkk yooyee nag waxtaan nañu ba tënk ab commission mixte de coopération boo xam ne rek mooy dox ci diggante Guinée Conakry ak Sénégal ay jéego yo am solo nag jëm ci wàllu délimitation ñel ñaari frontières yi loolee itam nag daan ci taxaw ay patrouille mixte yoo xam ne rek ñu ngi koy annoncé renforcement jëm ci wàllu secteur privé bi yëglekaay fellu ko ne ko lu jëm ci wàllum économie ak sécurité wàllum mii nag CEDEAO ak union africaine loole bokk na ca la nga xam ne rek moom la ñu tënkoon ci waxtaan wi doxoon ci diggante Jomaay ak Dumbuya Vox Populi xëy tey jii nag daal di def taxaw seetlu ci assises yi nga xam ne rek moom la ñuy amal jëmale ko ci wàllu justice niki ëllëg ci talaata ji yéenekaay bi di peeko le grand dëpp pour dame justice professeur Boubacar Gaye moom la njiitu réew mi tànn nak ngir mu doon facilitateur bi waaye na xaat ci ab bu ñuy tudd nag ñeel 263 yoo xam ne rek fi toll nii tàmbali naa jur ay xiiroo ki ngaayoo ancien procureur bii di Aliou Ndao ne Benno Bokk Yaakaar nu ñu leen mën a woowee ci yooyee assise nag ba noppi ignoré waa Y'en a marre ak waa FRAPP waa FGTS yi nga xam ne rek ñoom itam dañ leen a zappé ña ngay joxoñ baaraamu tuuma ministre du travail Moustapha Diakhaté jamono joojee nag mu mer bay futtu gis na lu ñu mel ab conflit d'intérêt bu doy waar la l'info yëglekaay addu ba tey jëmale ci dialogue national bi nga xam ne rek jooyantiwaat jafe-jafe ci wàllu yoon bokk na ci li waral ñu koy amal yéenekaay toll nii mi ngi mel ne tulleeg màlle jëm ci ñu war a teewee dialogue national Alioune Ndao nag ne Benno Bokk Yaakaar boobee ñu invité daal di ignoré waa coalition Diomaye bêtise gënu ko rëy waral muy laaj fan la Sénégal jëm Moustapha Diakhaté fellu ko na ñoom kay dañoo bëgg a gas ba mu xóot rek daal di suul constitution bu Sénégal ba noppi teg ci ne assises yooyee nag saaga bu mag a mag la ci wàllu magistrature bi ak képp kuy njabootam président Diomaye Faye nag dafa invité ay détenus yoo xam ne rek amal nañ ay crime bokk na ci ñoo xam ne rek dañ leen a Babacar Sèye ak ay nit yoo xam ne dañ leen tegoon loxo jamono ji Pastef doon amal ay yëngu-yëngal Abdoulaye Wilane ne Diomaye Faye ak Sonko moom dañoo mel ne xamuñu luy priorité ak li nga xam ne rek moo gën a doon urgence jamono joojee nag ministère bi ñu dénk wàllu justice ma ngay weddi lépp loo xam ne rek moo jëm ci publication ñeel boobee liste leeral yi nga xam ne rek moo tukkee ci jëwriñ ji bokk na ci liste boobee nag bàyyeekoowul ci ñoom les éco yëglekaay yoo xam ne rek bokkoon nañ ci waxtaan ñu amaloon ci atum 2018 daañu ko teewee Sud Quotidien addu jëmale tey jii nag ci lu jëm ci wàllu yeesal yi nga xam ne rek ñii di kilifa yu Sénégal bëgg nañu koo indi ci conditions yi ñu war a amalee examen concours ci atum mille 2023 jàpp 2024 opération de sauvetage moom la état bu Sénégal di amal jamono ji fi mu toll nii bëgguñoo ñoo seetaan école bu Sénégal muy tàbbi ci guut ginnaaw jafe-jafe yi nga xam ne rek nemmeeku woon nañu ko loolaa waral ñu jël seen ay matukaay ngir ñu amal examen concours yi ci atum 2023 2023 jàpp 2024 yéenekaay bi ne état boobee jël na ay mesures nag ngir dàq li nga xam ne rek moom moo jëm ci examen ak CFEE yi ginnaaw bi ñu ko jàppee woon ci lendemain tabaski fi mu toll nii nag kilifa yu Sénégal sàkku nañ ci gouverneur yi préfet yi ak maire yi nag ñu daal di jébbal ay certificat de non inscription ñeel ay élèves yoo xam ne rek dañ leen a déclaré te ñu nekk ci classe CM2 yeeg terminale yi te nga xam ne rek inspection de l'éducation et de la formation recensé nañu leen ba noppi l'observateur xëyee tey ji nag bilan bi nga xam ne rek moo tukkee ci teg loxo bi waa douane loxo nag boobaak léegi lu jëm ci wàllu drogue bi nag yéenekaay bi ne lu toll ci 9 virgule 834 ci ay tonnes moom la douane teg loxo ñu xayma ko ci lu toll ci 596 milliards ci suñu xaalis loolee ci diggante atum 2021 jàpp 2023 yéenekaay bi dollu ci ne weerub janvier ak léegi lu toll ci benn yu ñeenti ci ay tonnes nag moom la wax douane teg loxo loolee bu ñu ko xayma toll na ci 112 milliards jeexalee kook tàggat yaram mondial 2026 regroupement yi nga xam ne rek moo soxal gayndoy Sénégal première séance d'